kon ci coalition Diomaye président bi nga xam ne ñoom daal dinañuy rejeté loxo bi nga xam ne président Macky Sall na leen ko coalition Diomaye président xam nañu officiellement ne ñoom duñu bokk ci dialogue national bi nga xam ne woote na ko ginnaaw bi mu dàqee élection présidentielle yi doon ñu benn waxtaan woo xam ne danañ ko seq ak président Macky Sall duñu bokk ci dialogue bi nga xam ne président Macky Sall moo ngi koy woote amul benn dialogue boo xam ne président Macky Sall daal dina ko woote ñu ciy bokk ñoom daal la ñu bëgg mooy nañu respecté calendrier électoral bi élection yi waxtu woon ko jàppoon ñu amal ko loolu képp la ñuy sàkku sàkku ñu dem toog président Macky Sall kàddu yi bàyyi ko ci ñu dem lii président commencé euh, kon xaat dialogue bii nga xam ne lañ ci doon bëgg président Macky bëgg ko ci mooy ñëpp toog ñu toog waxtaan ngir jàmm mën a ci li mu jàpp na daal réew mi jamono ji ak réeru am na fi loolee mu bëggoon kon coalition bi nga xam ne coalition bi gën a fas ci opposition bi di coalition Diomaye Président ñoom nee ñu duñu dem daal bokkuñu kon commencé naa xajamal dialogue bi fekkoon na itam El Hadji Malick Gakou Thierno Alassane xalifa euh, Khalifa Sall ñoom ñëpp itam di ay leader ci opposition bi itam ne ñoom duñu bokk ci dialogue bi depuis ay semaine a ngi nii président Macky Sall li muy wër mooy am bénédiction bu Ousmane Sonko kaddu lay bàyyi ko ci Guy Marius honorable député Guy Marie Sagna joxe information de taille bu ñu sukkandikoo ci moom ne ne président Macky Sall daal mat na ay semaine boobaak léegi li muy wër mooy bénédiction bu Ousmane Sonko maam daal Ousmane Sonko nangul ko li mu bëgg maam daal baal ko rek ci gàttal itam euh, loolu da lay bëgg Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono yi ñu ngi ko téye ci kaso bi ci lu jaarul yoon ci loo xam ne itam ak jaay doole képp la nga xam ne daal euh, ca jaar jaare itam fi ne nii jaare itam daal di koy daal dàq élection présidentielle yi moom mii nag di Guy Marie Sagna nee na boobaak léegi président Macky Sall mi ngi def lépp lu mu man ngir ngir Ousmane Sonko daal man koo daganalal dàq gi mu bëgg a dàq élection présidentielle yi waaye nag loolu moom du am te itam xam leen ne lii ma leen wax du ay coulisse di wax man maa leen ko wax man député man euh, Ousmane man Guy Marius Sagna loolu mooy li am ay semaine a ngi nii président Macky Sall li muy wër mooy fexe ba jubóog Ousmane Sonko ci dàq élection yi maanaam daal daganal ko waaye itam fexe jubóog moom loolu lay wër waaye daal nee na li mu mën a xamal tey ko leeral mooy ñoom fa ñu nekkoon ci la ñu nekk mooy di défendre constitution bu réewum Sénégal amul kenn koo xam ne mën na leena a euh, daal euh, su fexe daal maanaam divertir leen ci li ñu nekk te moo di président Macky Sall mii li mu nekk mu dakk élection présidentielle yi ñu amal ko ca date ba ñu ko woon a amal su ko defee nag après deux euh, avril deux mille vingt quatre dootu nekk ci réew jiitu réew Sénégal lu dul loolu nag ñoom nekkunu ci loolu de bokk na ci xabaar auditeurs yi Mouhalim Info kilifa réewum Nigéria nekk itam président bu mbootaay gi di annoncé woon nañu ne war naa ñëw Sénégal tey jii fukki fan ak ñaar ci réew tey jii altine ngi gisee président Macky Sall waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi waaye day loolu yi xabaar génnaat ne wax ni mujjee na koo reporté du mujjee ñëw kon moom Bola Tinubu mi ñu waxoon dafa fas yéene ñëw fi nga waxtaan président Macky Sall ci tolluwaayu réew mi kon nee ñu mujjee naa ko kon daal di ah, daal ah, bàyyi ci xabaar yi mujjee ah, am ba tey ci xabaaru jëri Mouhalim info jàpp leen ne limum ñi faatu jamono gi toll na ci quatre personnes ñi faatu ci manifestation yi am ci réewum Sénégal ginnaaw ba ñu dàqee présidentielles yi nee ñu actuellement toll na ci quatre morts xabaar la bu ñu sukkandikoo ci Les Échos moo xam daal kon ginnaaw ñett ñi nga xam ne faatu nañu ngir ay gaañu gaañu yu ñu amoon ginnaaw ba ñu leen ba ñu waxee ne ay bal réel lañu leen dóor am na ko xam itam dafa faatu ab kër ab ah, waaw këraleer la maanaam ku yëngu ci wàllum karo ci lay yëngu loolu mooy métier am moom nag nee ñu dafa am soog boo xam ne dal na ko ginnaaw ah, baal benn motocycliste boo xam ne da ko daal di mbëkk la ko ko teg nag mooy daf doon daw jaare ci manifestation yi daal doon daw xëy na mën naa am policiers yi ñu doon sànni wala ñoom la doon daw ba muy daw nag daal di dajeeg moto boobu yi mu mbëkk mbëkk bu metti mu daal di faatu sur fekkoon na ci Ziguinchor ku ñu wax Landing Jeeju six cent la am fukkat juróom benn ñu ne moom tey dañ ko daal di faat bal moo ko daal di dal ci euh, Dakar kook mi ngi weeg turu wala boog mi ngi daan weeg turu faatu ñu ne bal ko daal di faat loolu yi nag am muy ñi ñàkk seen bakkan di wéy di am loolu moo waral docteur Abdoulaye Bousso di wax président Macky Sall ne ko ñaata bakkan ñoo war a naa faatu ci réew mi tax nag nga door a diglu nag peuple bi li lay wax. docteur Abdoulaye Bousso mi nag ñi ko xamul moo nekkoon directeur centre des opérations d'urgence sanitaire COUS loolu nekk direction bu nekk ci ministère de la santé yaakaar naa ñi miin ñi doon bàyyi xel xabaar yi Covid 19 bi miinoon nañ ko ginnaaw bi ne daa mujj woon a bàyyi moom mii nag président Macky Sall lay ah, waxal jamono ji ne dafa bokk ci. benn forom wala bokk benn euh, mbootaay gu ñu taxawal boo xam ne ci sër suuf la nekk ñu tuddee ko aar sunu élection ci la bokk dafa jaar nag ci réseaux sociaux yi di euh, Twitter di wax président Macky Sall ne ko lii nga xam ne am na ci réewum Sénégal muy dàq élection yi naqaru na ko lool waaye itam naqarlu bakkan yi rotu ñi ñu gaañ ñi ñu gaañ fii ci réew mi moo tax mi président Macky Sall daal ne ko kañ ngeen nag diglu askan wi ñaata bakkan nga bëgg gis ñu faatu nga doo diglu askan wi en tout cas daal li am ci réewum Sénégal bakkan yi fi faatu jégg na dayo lool te nag président Macky Sall lii war nga cee diglu te nag wut ci ay pexe manifestation yi amoon fi nga xam ne moo di ca euh, euh, ICB tey jii itam amaat na waaye daal ñoom force de l'ordre yi bii yoon wane nu yor la ñu jël muy waxtaan ngir nag waxtaan ak euh, étudiants yi ngi delloo ci seen xel moom daal ñoom tey seen kudur jàmm la ràcc ginnaaw faatu Alpha Yoro Tunkara boobaak léegi ay jàmmaarloo di fa am foofee tar loolu muy Euh, université bu Gaston Berger bu Ndar tey jii rek ay yëngu-yëngu amaat na waaye ñoom force de l'ordre yi day la ñu def bii yoon mooy ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di euh, euh, maanaam way manifestant yi ngir ñu daal delloo seen xel bàyyi li ñuy def nekkul daal na ñoom bii yoon dañu ñëw en matière wala daal ñëwee ci anam boo xam ne dañu agressif déedéet bi yoon dañoo ñëw ci négociation waxtaan ak ñoom ngir delloo si xelu xale yi ñoom nag la ñu wax mooy dañoo bëgg li am mooy faat gi nga xam ne faat nañu ko kenn ki ñoom justice leeral ko la ñu bëgg daal mooy ak faatoom nañ ko leeral ci na mu gën a gaawee te itam naqarlu itam faatu gi nga xam ne faat nañ ko mbokk moom yi bokk ci euh, bokkoon ci université euh, Gaston Berger bu Ndar daal di ñàkk ba kanam li kàddu yi nga xam ne moom la Doudou Ka wax ministre de l'économie di plan et de la coopération Doudou Ka xam ne tey ci altine ci ci RFM matin ne nekkul ne président président Macky Sall li ko tàmbalee à partir de du 2 avril mooy wéy di nekk ci bopp réewum Sénégal déedéet nee daal moom li mu jàpp mooy man naa am bu ñu àggee 2 avril président Macky Sall joxe nguur gi jël nguur gi jox ko keneen nekkul nag ne position boobu mu am moog ñëpp ci bokk gis-gis ci majorité bi déedéet waaye daal dafa jàpp ne président Macky Sall possibilité mën naa am bu nu àggee 2 avril mu joxe réew mi nee nag man dama wax en tant que koo xam ne doomi réew mi laa bëgg itam réewum Sénégal daal nekkaat ci la ñu ko xamee woon muy réew moo xam ne daal réewum Sénégal modèle la masa doon ci wàllum démocratie waaye itam modèle la masa doon ci Afrique ci àddina bi mu jot na daal xëy na bu ñu àggee 2 april man naam président Macky Sall jox nguur gi keneen waaye nag loolu yi nag mu wax na nag loolu yi moom la koy réglé constitution bi réglé na ko mooy bu ñu àggoon 2 avril président Macky Sall naka joxe nam ma joxe li nga xam ne moo di nguur gi la koy réglé moom loolu constitution bi def na ko waru ñoo nang daal kenn ku nekk ci euh, ñun di def loo xam ne état réew mi ñun ñëpp dañoo war a góorgóorlu fexe ba ak dal ak jàmm euh, euh, sax ci réewum Sénégal mu wax itam ci beneen côté moom Doudou Ka mooy lu ñeel libération Ousmane Sonko bi ñuy wax joxe na ci position wam nee na itam daal euh, euh, li moom du mbir nekkul mbiram ci li nga xam ne mooy doxinu justice jàpp na ne euh, Ousmane Sonko bàyyi gi ak téye gi comme ni nga koy waxee fan yi loolu daal mi ngi ci loxo yi justice la daal di nekk waaye daal moom li muy wax mooy acteurs yëpp ñoo war a dem dialoguer maam toog waxtaan dialogue kon ñu toog waxtaan ngir mën a indi jàmm ci réewum Sénégal ndax jàmm jooju kat moo jikk mboolem ñu fi ah mbooleem naal askan wi daal ci gàttal 85 personnes jàppaat nañu leen ci ah, benn ah, maanaam juróom fukk juróom-ñetti fukki nit ak juróom ñu bëggoon a tukki ci lu jaarul yoon ne ñu jàpp nañu leen dibeer fukki fan ak benn ci weeru février bii ñu ah, génn marine nationale ñoo daal di teg ah, loxo jaar ko ci benn opération boo xam doon nañu ko def ngir di wéy di daal ah, bàyyi xel ñi bëgg a tukki di jaar ci ah, géej gi kon mel na kilifa yaa ngi wéy leen bàyyi xel ba tax na kon 85 personnes ne ñu tegaat nañu leen loxo ci bët saalumu Dakar ñi ko def nag ñoo di marine nationale ca Cap Skirring lu waar moo fa am benn waaye moo fa faat koo xam ne ab ex copain am la maanaam daal ku doon bëgganteel ginnaaw bi nag mu daal di koy mu daal di koy bàyyi xëy na nag wàllum service bi jàpp ko buñ sukkandikoo ci Ah, Seneweb kon moom ki mu faat soxna soos yi dafa yoroon benn ah, salon de coiffure waaye daal kam doon bëgganteel moo ko daal di ah, faat ginnaaw ba mu yëgee daf na da koo bàyyi dem di bëgganteel keneen ki mu ki ñu faat nag mi ngi wekk turu Binta Fall ki ko faat nag nee nga gendarmerie teg nañu ko loxo mbir maa ngi xewee ca Ziguinchor enquête bi nag nee ñu mi ngi en